C'est un site Dakar Matin Molen Dimei, c'est may revue de presse à Pape Alé Bissimile, démission bu juge bi di Ibrahima Dème justice yéeral yéenekaay bii di laas ñu ne ki nga xam ne moo di Me Sidiki Kaba dafa mer ba futtu te bëgg na ñu teg ay daan ki nga xam ne moo di juge Ibrahima Dème nee na respectewul benn yoon li nga xam ne moo di tradition justice na miig miikaaral noppi na pat doo wax dara lu fay ñaaw téef loolu daal tradition bu justice te nag nee na magistrat bu demee bay wax justice amul indépendance problème am na ci biir yéenekaay bii di la témoin Maître Kaba nee na justice spectacle justice médiatique ak justice émotionnelle loolu la ñu war a moytandiku fii ci réew mi teewul ci biir Vox Populi moom Maître Kaba muy xamal ne président de la république munte teg ay sanctions kii di magistrat Ibrahima dem n'ak wa waa union des magistrats du Sénégal war nañ jël seeni responsabilité ci booba ci yene kay bi di las Ousmane Sonko wo askanu Sénégal na jël leenu défense ki nga xamne modi moo di Ibrahima Dem ndax n'ak yéen tax mu wax lamu wax ñu dess ba tey ci walu yoon ndax kay bi Libération mi ñu yëgal ne kii nga xam ne moo leet lieutenant colonel Diadji Ba nekk ci duwaan ñu toppe woon ko enrichissement illicite noppi na ngir waxtaan ba juboo joxe ay koppar ñu bañ ko tëj ci biir kaso bi moom sax tàmbali na ay négociations yi ba def na ay proposition parquet spécial te direction générale des impôts domaine am na malaise bu rëy bu fa fas yéene am lu ko waral nag moo di fonds commun yi nga xam ne dañ koy séddoo seen biir cour suprême dafa àtte yéen kay bi da moo jox dëgg inspecteur des impôts et domaines ne ndàmpaay lu gën a duun ñoom ñoo ko war a yor ba tax ñay liggéeyee ci biir impôts et domaines te duñ ay inspecteur ñoom nee nañ lii buñ ko defee jaaduwul ñoom ñëpp ñoo war a tollale Vox Populi na démb si fii nga xam ne moo di maison du parti socialiste coow amaat na fa ndax dafa amoon réunion secrétariat exécutif national ay góre yi nekk ca biir parti bi ñoo aaye Barthélemy Diaz mu wax teewul wax na nee na ci atub 2018 Tanor Dieng amatul lenn lu muy wax ndax nag day nekk illégitimité ki dootul doonati secrétaire général bu parti socialiste ndax àppam day jeex ki yor kàddu partie socialiste de adjoint ba maître Moussa Bocar Thiam lu mu wax nee na ñi nga xam ne nee nañ dañuy déposer liste législative beneen bu dul Benno Bokk Yaakaar buñ ko defee ñoom ñoo dàq seen bopp ci parti bi Tanor ci biir yéenekaay bi laas lu ne la yàq xalifa sàll boole ko di ko menacer beneen coow ci beneen parti di PDS yéenekaay bi l'Observateur na Aïda Mbodj jur na malaise ci biir parti démocratique sénégalais dafa mel ni dëkk bu dugg ci biir tànk lu tax amal na mouvement am di dox ay doxam di ci wéy te nag ñu bëri njort nañ ne boo sàgganul day doon candidat ci élection présidentielle farma Farba Senghor ne nañ ci jóg gaawtu lu ko may rek bu yàggee tuuti coow dina bari ci mbir mi accident yi nekk ci télé bi métti na lool yéeni kay bi la témoin moo def bilan bi tey 600 morts 2016 te nagul toll ci 163 milliards le coûté ci économie sénégalaise yéeni bi nga xam ne moo la témoin ne état nee na day dakkal loolu nag lu tax day jël permis à point le fas yéene samp Vox Populi ne boo demee si centre de technique de 37 pour cent oto yu fa ñëw dañ leen di dàq des ba tey jii ci télé bi ak yéen kaay bi le quotidien di ñu yëgal ne. fa ñuy tabaxee ilaa Touba ak jam ay AIBD liggéeykat yi sonn na lool galère la ñuy dund te dëmb député yi ba ñu demee nemmeeku leen wax na leen ko wax ci mbiru Pape masata jaag ak ki nga xam ne moo di ci biir yéenekaay bi di Libération ñu jël waxtaan woo xam ne Pape Massata Diack séq na ko ak waa Jeune Afrique nee na lu ñuy tuumaal dara du ci dëgg. Université Cheikh Anta moo jël trente et unième université yu gën a ñàkk productif ci Afrique loolu la ñu yéenekaay bi L'Observateur waax na benn classement moo ko fésal. waaye coowul appareil radiothérapie bi jeexagul ndekete yéenekaay bi di laas xamal ñu ne spécialiste yu nekk ci hôpital Le Dantec ne neen mukk nu ko état bi bëgg a defee du noonu mun ñu xëy rek dafa entante direct ne dem leen jëndal ñu appareil appareil bi dafa am nu mu war a mel kon waru ñoo gaawtu benn yoon ndax yàkkamti gaawtu buñ juree doom rëccu lay mujjee jërë ngeen jëf si dégg mu leen di daje sa jëm seen site dakar matin point com incha allah